publicité la te fayoo fayoo may woo waa Nescafé maa ngi woo waa Nescafé ndax ci dëkk bi lañ nekk di liggéey ay eh, nañ ñëw jox sponsor wasaare ndax lii bu la neexoon tey mën na leen génne leen ko ngeen bañ formas bi maa ngi leen di woo ñu ñëw sponsor wasaare ndax yéen koo leen taalalul mikoro baaxul. bër bi jadida la lii boo ko diwee ci ginaar mu neex boo ko defee ci bër boo ko defee ci mburu mu neex nga def ko ci beñe mu neex maa ngi leen di woo. te laax sax day ba sànni ci raisin yi. balaa ñu leen di. dawlin bay balaa ñu leen di na ñu jël. man ak yow nga xool. tàndarma moom. xam nga ne lii mu ngi jugee ba Màkka wala Araabi Sawri ca biir a biir lii lii lii ma jox la si benn secret boo dee xëdd boo dee xëdd maanaam tàndarma bi maa ngi naan marhaba xam nga marhaba kon marhaba sëñ bi li lan la danu laa ilaha balaa ngay xam ne doon loo neex sa baay dee bàyyi fi alal gu bëri bu sa xamal doo dono mooy donnu rek waaye bu sa làmmiñ ki ko ki ko nit bind daa juum làmmiñ bay takk moo tax mu duddee ko danoo ay lii ndeysaan su ma yeggee ba jël garaax tëmbal ko ci barki maam Cheikh Ibrahima Fall lépp lu ma ci naan directeur wasaare làmb <laughs> fi mu toog lay yëg di di yëg neexaay bi barki maam Cheikh Ibrahima Fall ma koy ñaan meew mi xam ne meew ñuulul day weex ni meew bi weexee maa ngi koy ñaan ci barke Seydina Muhammad ci barke weeru koor gi yàlla na ko léppam weexee lii xanaa doone ma mayonnaise la de. mayonnaise la de. laa ilaaha ci nga gën a nag juum ngeen. daa waroon an poobar. nga lii boo suyee poobar boo suyee poobar. mais ñii sax duñ leen may bës nañ ñëw. nañ ñëw ñu toj fii. waa mooy sekk couscous marocain. waaw xam nga ni la may fàttali. jamono ngénte bu maire di njokk na nga taxaw seen wet di leen lii maa ci xam maa ci mën a bind livre maire dañuy lekk nii nga leen di xoolee xoole nii ba maire bi jékki-jékki ne la sama doom ay eh waay lekk. paysa nga xaw a dugal ñaari baaraam xool gisi benn genre dinañ koy nga nga bu ñu ñibbee dañ lay waale barki maam Seeraama Faal suukar moom dañuy sant waa compagnie sucrière du noonu la ma leen wax ñu dugal seen loxo ci làmb ji woo waa te làmb ji nag du ma si làmb rek football bi Macky Sall bu bëggee mu dox na wax waa société bu mag bu nekk na jël benn ASC jël benn écurie sponsor te làmb ji nañ ci boole mbër yu ndaw yi président CNG daan na def mbër bu ndaw bu bëre bu nekk mu dagg sa xaalis cinquante mille denc ko banque bis booy bàyyi bëri soo fa amee deux cent cinquante mille wala benn trois cent mille ñu wut luñ la lebal tegal la ko si jënd la ko fas mbaa saret mbaa oto mbaa kër ndax sama jeex si dëkk bi ah tey dafa laa yem sant naa gërëm ko sant suma yaay sant suma papa sant Pa Fallou Sène sant na ñëpp wax dëgg yàlla yéen bi kontaan naa bu baax a baax sant sama nijaay Bayaas sant suma rakk Souleymane sant na Père Malick Cissé sant Mamour doomu Fass sant naa Sénégal ñëpp di wax ne subhaana rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf Serigne